dikkati naa la xale ya naan dootoo ko defati le témoin yéen kaay naan man Sénégal kay dafa naan su ma yëgoon du ko def l'info yéen kaay naan leen déet Juan Branco ma nga naan leen dootoo ko defati le témoin yéen kaay naan benn fan la am rëbës Juan Branco day ñibbi na réewam di wili pande Sénégal ma ngay xam leen nag ñaawteef yi nga xam ne def nañ ko ko ci réew mi waaye tam ñaawteef yi nga xam ne am na ca kasoog rëbës ba moom Juan Branco nag di nit la nga xam ne moom la Ousmane Sonko di dund saa si tembe cim réewam mu mitti lool ba jéggi dayoo bugaan yéen kaay naan dara Juan Branco daal lum ñu nettalil ci bitim réew ñun Sénégal ñoo ko def xam nga épisode Juan Branco mii daal dinay wane ni Sénégal daal ñaari xeetu justice moo fi nekk moom Bougane Gueye Dany ci le regard yéen kaay naan am nag justice ngir ñi nga xam ne ñoom ñoo am waaye am nag justice ngir ñi nga xam ne ay néew ji doole lañu l'évidence yéen kaay naan man Bougane Gueye Dany nga dalati ci kaw nguur ga tribune yéen kaay naan ko kaay maa mën maa ëpp doole maa dàq nit li xam nga li ñu def Juan Branco ci réewum Sénégal nekk na lépp ba mu des teranga sénégalaise ndax nag ci Mauritanie bi la ñu jàppee Juan Branco mi daal di jagat-jagatee daal di indi daal di sànni fii ci réewum Sénégal ñu ne déetawaay ñu daal di tuur Juan Branco rëbës daal di koy toppee ay mbir yoo xam ne maar day taali bokk na ci attentat bokk na ci complot bokk na ci diffusion de fausses nouvelles bokk na ci trouble politique grave bokk na ci ñëw ci réewum Sénégal ci anam woo xam ne jaarul yoon moom Juan ci l'info yéene kaay naan déet man kay ci yoon laa duggee ci réewum Sénégal tribune yéene kaay naan may ma ma yëgli ma ni ndax nag autorité yi bañ la jàppee nee ñu na duggee ci réew mi du yoon yoon moom Bougane Gueye Dany ci turbine naan xam nga Sénégal ma ni dafa am ñaari xeetu yoon yu fi nekk yoon woo xam ne mooy atte ña nga xam ne dañoo am doole ak yoon woo xam ne mooy gën a noot néew ji doole yi Bougane naan Juan Branco mii di avocat franco espagnol nañu ko traité bokkut ak suñu doomu réew dañ leen traité ci kaso yi naka la ñu mën a jëlee ab mandat d'arrêt international koo xam ne fuñ ko mënti fekk ci àdduna wërngal këpp dañ koo war a jàpp kooku dox roñ roñ ba sam réew daal di taxaw te mujjantal ka Bougane naan sénégalais yi li ñu dajale ak su néew xam ne fi mu ne dund gi métti na sénégalais yi ànd ak coono goo xam ni maar day taali réew moo xam ne kilo soble ñaari téeméer weesu na ko sénégalais yoo xam ne xiif nañu mar ñu nekk nañ ci coono daal di dajale ak seenug néew fekk ko xam ne daanaka la nga yor sib koppar mënoo ko jeexal ñu jël sa billet daal di la koy jëndal ci business class nag xam nga prisonniers yi nekk ci kaso yi ci réewum Sénégal yëpp suñ leen waxoon ne la Juan Branco am daa ngeen ko am géy ne yëpp ay màbb daal di dugg kaso xam nga Sénégal leer na nañ ne fi mu ne ay caaxaan moo fi am moom te tëj gi nag mi ngi ànd ki caaxaan prisonnier politique yépp Bougane Gueye Dany ne nañ leen bàyyi mooy dëgg libération yéene kaay ne jàpp gi day tay la gën a tar ma ne la nit yi nga xam ne jàppoon nañ leen ca Pastef yëmbal sud juróom-ñeent ci ñoom daal di leen di tàbbal kaso ñaar dong ñoo ci am contrôle judiciaire source a naan maan juróom benn fukk ak benn ci ñoo xam ne Pastef la ñu bokk démb démb rek ma la daal di nañ leen di yóbbu kaso ñaar fukk ak benn ci ndakaaru lañu fanweer ak juróom ya nekk ca Sigicoor Vox Populi naan maan Pape Alé Niang am na liberté provisoire Cheikh Baara Ndiaye am na liberté provisoire waaye dañoo laati kaaf ba fi mu toll nii ña nga ca biir kaso ba les fo yéene kaay naan man Ousmane Sonko moom it day ma nga cëb xiifal ay avocat am naan sàkku nañ ci Ousmane Sonko mu bàyyi xiifal gi ndax nag dafa nekk yaakaaru ay ndaw yu bari ci réew mi maître Clédor li ci libération yéene kaay naan Ousmane Sonko de fi mu ne njàqare daal daal dinay am ci état de santé am daal dinañ ci tiit ba maar day taali yor yor naan man Ousmane Sonko mi ngi ci guddi gu bët setagul waa yeewi askan weeg waa F24 di sàkku nag ci Ousmane Sonko mu jeexal xiif xiifalam gii maître Ciré Clédor li naan bu ko jeexalul day lambaay ñaaw ndax fi mu toll nii laati kaaf na mi ngeeg wopp yoo xam ne deesu ko mën a nittili waa yeewi naan kon Ousmane Sonko na dakk le mandat yéene kaay mel ni ku naan kon yeewi askan wi yéen kiyét yi xam nga daanaka foo ak kàccante seen biir moo fi nekkoon tey jii nag tëj nañu Ousmane Sonko teex teex may ree la wala def semblant moo fiy mujj en tout cas ànd bi ci boppam mësta nuru lu sincère tribune yéene kaay naan man ca ànd gu sincère googee moom Babacar Justin Mbeng bu gëm sa bopp nag Pape Konaare Jayte moom Pape Konaare ma doon dal ci kaw Bougane Gueye Dany Babacar naan kon diggante Bougane gay Dany ak Ousmane Sonko ak Khalifa Ababacar Sall dama la bëgg laaj ci réewum Sénégal gii boo laajee sénégalais kan moo ci ay workat kuñ lay tontu ndax Bougane mës naa war politicien ci réew mi wala Ousmane Sonko it war politicien ci réew mi Tribune yéen a kaay naan maan en tout cas Ousmane Sonko moom yoon yi mu mën a jaar moom partiam ngir mën a bokkaat ci élection yi day bariwul critique yéen a naan maan yooyu présidentiel yu nar a xumb nar a dagan ndax nag président Macky Sall nii wii nii noo de la mayee l'enquête quotidien naan man dafa mel ni nag wërante bu nëbbunteeg dóor dàqe moo am ci biir bennoo bokk yaakaar l'observateur naan man en tout cas Amadou Mame Diop Amadou Ba ak Mansour Faye day gise nañ xaaja guddi critique yéen kaay naan man lum ci mënti am guddi na guddi na bennoo bokk yaakaar day juróom benn weer de ci élection présidentielle yi te ba nii kenn xamul kan mooy seenub candidat buñ ko waxul teel lambaay mën na ñaaw l soleil yéen kaay naan man président Macky Sall mu nga jëm ca Abuja boobu waxtu woowu Sénégal candidature yaa ngi mel ni tulleeg maale Ousmane Kane mii beneen candidat la bu yees boo xam ne nee na nag yeesalaat réewum Sénégal yeesalaat gëm-gëm yi defaraat jikko yi soppi taxawaay yi ak doxalin yi moo ko tax a jóg ñëwam ci Sénégal du lenn lu dul daal di jooyanti Ousmane naan candidat la te bés bu ma sénégalais yi falee dee daañu xam ne coppite dëgg-dëgg dana am ci bopp réew mi ndax nag Sénégal ak sénégalais yi dañoo am lépp ngir mën a jooyantiku ngir Sénégal mën a ñoŋ nekk ci ëllëg goo xam ni maar day taali fi nag faaw ñu jox ko boroomi xam-xam yoo xam ne dañuy teg mi ci yoon rek Sall muy jaar ci yoon goo xam ne maar day taali bugaan naan lu ci mënti am daal nan fexe ba justice bi moom daal di jaar yoon 24 heures yéen a kaay naan kon xam nga sénégalais léegi sax moo neexuta a nax élection présidentielle yii ñu dëgmal daa ngeen ci gis surprise yoo xam ni maar day taali bari na ci ñoo xam ne laa la foog nan ni nag sénégalais yi am nañ ci ñoom yaakaar foog nan ni fi mu ne dem xëcc réew mi moom moo ci des foog nan ni nax nan sénégalais yi ba naan seeni yuur xam nga senegale yi bu yaakaaram yankeekoo ci yow confiance nga daal di deñ fa ay tëñ-tëñi rek waaye sénégalais yi ci boppam ñoo dul joxati bopp le point yéene kaay naan maan juróom-ñeenteelu édition bu jeu bu francophonie ca Kinshasa day Sénégal teew na fa professeur Aliou Sow daal di le ni beneen pàcc ci taarixuk réewum Sénégal ubbi nañ ko te Sénégal ca Kinshasa mi ngi dox dëgg-dëgg ak couleur francophonie tribune yéene kaay naan Sénégal goo xam ni mitti na mitti goo xam ni maar day taali réewum senegal bokk na ci réew yoo xam ne ñoo gën a ndóol daanaka ci àdduna wërngal këpp fii ci Sénégal bokk na ci réew yoo xam ne essence fii la gën a la wax de waxuma la Afrique àdduna ñi gën a cher le essence turbine yéen a kaay naan man Sénégal ci la bokk le quotidien le quotidien naan man réew mi bu dëggul liggéey jàmbur dina ma jaaxal lool aji raa bi saar dawatina yéen a bi naan man ni ki démb la aji saar daw ndax garde du koor yoo xam ne yu yees la am ñoo ko teree génn tere ay xaritam ak i mbokkam ñëw seet si aji saar aji saar meer ba futu daal di fàq 22h30 la daal di ñibbisi waxtu woowu yéene a bi naan man république bi yëngu na gësamu na njàqare la ñu nekkoon ni ki démb ci dawuk aji saar gii garde du corps yu ko teree génn moom aji moo ko dawloo turbine yéen kaay naan man liggéeyu jàmbur go maa la koy dëggalal xoolal ma ca diwaanu Pikine gi rek waa jii di maçon dañu koo bett mu daal di sëgg ci xale bu jigéen boo xam ni xelam matul nekkoon ca mbedd ma doon ko sàkku ci anam woo xam ni maar dey taali naka lañu ko jub ak tubéy ju wàcc ja ci tàmbalee woon di daw bañu ni ko nii dafa ne da doon jëndal xale bu jigéen bi lu mu lekk ci ko xale bu jigéen bi nee ñëwal sàkku mu koy nax di tuur tuur lu ndox fa mu sumee braketam di tuur ndox fa lañ ko fekk jàpp ko